samay yére lu bon duma yéene yàlla yàlla xeere ba kenn duma meere saalum la ñuy réere yàpp ak baay moom du weere ta du daw xare ay ma la min daara bindal na may téere téere yaa nga saalum saalum ñetti ne la ñeenteel bëri waaño waaño waaño buur la dugub ba lekk ba suuf la ki mooy buuru saalum ñëpp naan ko maalum du ragal du daw bëgg askanam raw xam am kam du taw ban yax gën na law ñëpp mën leen a naw Assalamu alaikum, Um, it's your weekly program called What's Up, and I am your host and DJ with Jamila um, Haidara. Today our topic is rather um, a little off page, and because we're talking about the influence of the West, Western culture and lifestyles and ways of life on African young people, especially Gambians, how has they impacted us? Um, bading um, madinkulu aning akamola, ntineng albadi malka ntetinen jite. Ala lokungo lokum program ole minkanale sibdo sibdo kabo talang sabanin talakata, talan, talan sabanin cottoning gara <laughs> talan nanim 15 <laughs> 15 kan um, bi ala nin topic o wala mu um, bantankol tubabo tubabol ya ya influence min soton tol gambian nol kan africa lol kan so gambian nol fon am um, abe ko ila ila kuwol keñe la laaɗol ni la aaɗol jitan kan ñaamen fo sayen um, mol kuwole nooma um, jama jama jamila Okay, um, okay. Assalamualaikum. Ñu leen di nuyu, di leen sant, di leen wax jërëjëf um, ci sétan bu rafet bi ngeen ñu sétan. Ñun ñoo fi WhatsApp, di leen ñëwal samedi bu nekk si ñetti waxtu tegee ba ñeneen ci waxtu. Tey nag comme te si sosai. topic buñ amal tadi nara waxtaan ak yéen mooy uh, li nga xam ne mooy aaday tubaab wala aaday nit yoo xam ne bokkuñ ci ñun nit ñoo xam ne aaday nasaraan daal si kàllaama comme aaday nasaraan yi nga xam ne ñu ngi ko jël def ko suñ bos bàyyi suñ aaday jël ñoom seen aada moomale ko suñ bopp ba pare génn leen ci raw ñoom li nga xam ne defuñ ko si ñun ñu def ko si ñun léegi loolu nag lañ toog di waxtaanee tey su fekkee yéen ak ñoo seetaan mun ngeen ñu kool ngeen bokk ak ñun waxtaan bi comme nañ leen ko di waxee saa su nekk rek ñun luñ fi toog di waxtaan rek yéen a ñu ko gën a xam so um, tey loolu la ñoo waxtaanee te toña jam na kacara kacara bonde atolle ya lontol de atolle ya um, londo sodo je dinantol fondi so uh, telephone line olɓe yellene alta call ke noon a 3910 uh, yala téléphone siga alimol so hakkilola na, na, na ñow yamari sadie soma alpha bi fonninkel soma alphalo nsem fan nafano um, sinin sama um, mm kamin fo tubabo la lado ila adol ike kuul ke kenyam bi la parel fo la domor nyal fo la tam nyal fo la signal adun tan kono nyadile um fo say fo ninge jama hani angle ka ni ka fe ka dun nyokono nyam fo ngasembo watra mm-hmm, em mm-hmm. kala fla understand ni wetu lolo um nta mune keno wo kuwata pour ka atala wara ka bondi um, wara ka impact ka fondinkel murundi na, na gambian ladol ni na adol ka, kan um, we have a documentary to na minke damaning pour ka kuwal jibe damaning nisa jibe no Jamila yes exactly um, balaa ñoo dem uh, ba si kanam ak waxtaan bi de dañ dinaa demal ak benn break bu gàtta suñ dellu see rek ñu continuer waxtaan bi ak yen topic ko yita ndalo nyam um, um tubab influence of western lifestyle on african youth gambia especially mm na fo nyam ila lado ni la ado ni la kuwal ke nyam bila ila ila pare nyal fol nu itama nyal idiamu nyal kata um, isi nyal ni do mol nyal ni la kila alfal fo bu nyal nyamen adun tan ko nyadi la ani la la dol um, fali nyamen baki fon katung dol dol bije tubaab ko man nga kaw foofu noonu man tubaab kaw dundi ji ci fàtte dama xel comme tey nag fu mu mu ngi bëggoon a wax ah, talang sabaneng too wala salang sabaning xaw na ka waaye mu ne talang sabaning kota but he said talang sabaning kota and eh. kota is not naka nga waxee kota in maninga okay it's so kool kelal mun maa koy kaa fa kota ñaadil maninga ka woon okay every maninga like comme ni nga ko waxee suñ aada dañ am aada ak cosaan comme luñ toog di waxtaane tey mooy li nga xam ne mooy aada nasaraan ak seen seen doxin seen solin seen waxin seen lekkin seen dundin yëpp li nga xam ne rek seen bos la ñun ñu jël ko moomale ko suñ bopp bàyyi suñ bos fële suñ buggee wax sax luy koota si si soose mun nañ koo wax uh, ok xam nañ kool Hello. Okay, the number okay, to call, call is... The numbers to call Mm-hmm. 437-3910. or 437-5905 bu ñëw waxtaanee tey mooy aaday nasaraan yi nga xam ne ñu ngi ko jël moom moomale ko suñu boppa ba pare fàtte suñu aaday nu ñoo soloo nu ñoo doxee nu ñoo waxee nu ñoo jëfee nu ñoo dundee sax nekkatul suñu aada ak nu ñoo jàppee suñ kilifa yi cër buñ leen jox. hello. hello. yes hello what's up. allo Kairé Doron. Kairé Okay, let's take this documentary with that and um, we get back. Na in documentary jibe na murunang kwenye jamina. Mhm. Na jibe nga nanang, sang sang. Na murunang. Hmm. <laughs> globalization of the world and subsequent bridge of the gap between Africa and the West through the advent of fast and easy communication and multimedia devices and mediums. There has been an increase in the supposed nature of copycat on the lifestyle and behavior of people from the West. This could be their ways of life or basic day-to-day -day activities. Going out? Yeah. You can't go out in those. Why not? I'm a teenager. You don't expect me to dress like you. Mom, this is not too short. <laughs> Would you wear this if your father were home? That's the problem. You won't allow me to be me. Convince me why I should let you go out in those. Well, it's hip, it rocks, it's trendy, and I feel comfortable. Well, I'm not convinced. Go back and wear what your father would approve. What's all this now? for Christ's sake. And it's just because I'm staying in this house. I see. Come back here. You can go. Eh? You heard me. You want to go out half naked? That's the door. You can use it. Either ways, young people across Africa